xol yépp tooy laal jëmm yi jooy laal sa dem gi tiis laal Seex Saaliw Mbàkke xol yépp tooy laal jëmm yi jooy laal sa dem gi tiis laal Seex la yaakaar day sunu yaakaar di sunu jàmbaar Seex Saaliw Mbàkke sa naal yi laal sa jëf yi lay laal ngay sunu wéetal Seex Saaliw Mbàkke fu nuy jëleeti fu ameeti fayam du tuuti Seex Saaliw Mbàkke đông dai nyo jo ai tut trang kia dootu fi am ci Seex Saaliw Mbàkke wét nó si đun bi wéetal na đun bi defar nó đun bi Seex Saaliw Mbàkke bég nó chỉ mang mi ya yamul si mang mi man maa ngi man mi Seex Saaliw Mbàkke Realize yok mi Santre yok mi Gitgul maman mi Siksa alim baki Waran nama dem Wajilang ay am Wilung yaram am Siksa alim baki Danyo bagon am Gerang am Dam Gaya rasuni dam فيغسل يماكي nga làqu tey ji metti ci ñun ñi jooy nañu ñun ñi Seex Saaliw Mbàkke dañoo bëggoon doom nga yar suñuy doom ak suñu doomi doom Seex Saaliw Mbàkke tiis na te tiis lool na yow lool nit ñëpp a jooy Seex Saaliw Mbàkke gis koy ni neex lool ku am ko dootul soppati wéttal Seex Saaliw Mbàkke moom rekk mooy waay tarbiya waay waay ñàkk na ab waay Seex Saaliw Mbàkke xale yi wéet nan liggéey nan Seex Saaliw dala daa wala yow di la bës loo bernde la xam loo Seex Saaliw Mbàkke di nax la ngay di bernde ngay defal la bay ree Seex Saaliw Mbàkke mu jox la yitte fajit sa yitte Seex Saaliw Mbàkke du bëgg ngay door day bëgg ngay aar njaboot gi jàmbaar Seex Saaliw Mbàkke ku am ku mel nii mu dem ci yow nii metti na mii Seex Saaliw Mbàkke man duma yaakaar ku ami bàkkaar ëllëg ma koy xaar mu naa ma xaaral Sëriñ Saaliw moom ku ko du ami bàkkaar ëllëg ku koy xaar du ni la xaaral Mbàkke bala ëllëg ku koy xaar du ni la xaaral والحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليس تقفى إلا على من بنكام يخفى